abra ma xaw fi daal moo jël doomu femme bi daw dugg ci biir neegam quoi teju naan doomam la wax nañ ba sonn pour mu ubbi mu lank ne du ko ubbi nee na moo jur xale bi. xanaa nga mën ci dara. fa la jor nekk. mu ci kaw ak xale bi. waaw baax na. xaar ma fi ma la sa doom xaar man duma la xaar fii mag yow ñooy ànd sama doom bu génnewul police laay woo léegi mu ñëw xaaruma dara déet soxna si defal ndànk rek du ma jot sa doom doom lañ jël doom doom lañ jël wallaay xam nañ du ma def ndànk mënumaa def ndànk Yo. Dior Dior Mariama tijjil ma la man waxal yow laay dugg waxal rek waxal. kii li mu def nii tayu ko andi nag sabab. waa léegi tayu ko sama doom nekk ci biir lan la koy def dama koo xam. du ko def dara. wóorul de bàyyi ma sama doom. moom dinaa la andal sa doom. sama ci la jox sa doom damul suuf nga xaar ne maa ngi lay sa doom. dàq naa ko tëjee. déedéet demul demul. tëjal nga xool. def yëpp tey ko daa àndul ak sagam moo tax. gis nga kii bu àndul ak sagam da ngeen koy yóbbu hôpital fa ñuy fajee dof yi ñu faj ko mu gën ngeen bàyyi ko fii muy siif doomi jàmbur yi jox ma sama doom. concours bi nga xam ne moom moo fi amoon ndax bu ñu nee siiw moom du jàmmi borom te Sénégal ñi faral di siiw dañuy exposé seen bopp ba seen dara dootul umpe ndax bu ñuy wax ku ñuy wax bisaab euh, la la la belle-mère am def accident ba gaañu si te moom mu nekk nit koo xam ne nit ku siiw la ba pare doon takk soxna war a takkandoo ñaari soxna si benn jour ak li si aajo yëpp problème yi nekkoon si biir sëy yooyu yëpp laa nag bu ñu tëbee tëb ñu ne yaay joor euh, def na accident ba ñu ngi wax génn na si àdduna ak yooyu laa nag euh, dafay mel ni mbir mi naturelatul police bi daal lu ñu si wax rek am na am na am na lu ñu si bàyyi te suñu police bi xarañ na xarañ boo xamante ne ni jamono ji Sénégal ku foog ne di nga def dara génn si noonu ndax nga sa bopp Qui nga xamni mom 1987 ki nga mm. inspecteur des impôts alors lolu famille bu influent je pense que au niveau national même international parce que mom mo Miss Sénégal 87 ndax amoon na ko amoon na ko ay jafe-jafe ak yoon donc bu ñu dellusiwaatee lu mel ni am mu mel ni fay boobu tamit dafa nekk fay boo xam lu ñu dugg ñoom dañ siy génn parce que temps yee may noon force si weewu bay euh, si grand buzz euh, si def fa benn saccage boo xamante ne ni dañ ko doon nëpp nëppal mais après finalement dóor waa ji def ak yëpp mais papa ji daf ko mujj dem xam nga def ay affaire ba affaire yi mujj sedd daal moom daal mu mel ni ñoom euh, ay nenu ñu xool lañ daal kenn du leen taxal suuf ak ya bi comment tu te sens pa dënd bi fu mu nekk ni dee moom ko gënal bu waxati loolu loolu kenn du ko wax ah loolu loolu kenn du ko wax ah del wax wax nit nag yow tam loo yor ni robu maria bu joor laa yor ni la ma la waxoon def ngeen ko def nañ ko. yaay. waaw. est-ce que xam nga ne ki soo ba tey wane télé. kon loo mën a fi indi. kër soo ba mën nañu wane télé. doomu day génn télé est-ce yow juddu nga. Hmm? dama bëgg nga wax ma leneen. Idio fils ñëw na. léegi naa ko sànq muy gaari oto. waxal loolu léegi nag. léegi nag man de ñëwee ko sax xool muy liir ci samay bët ne am na lu ma xam ci dese Mariama bi. xam nga lu ma lay yëgal nekkal nit yaa ngi toog nekk tàppet ah yow yow dama la yar ci tàppet xam nga lu ma lay yëgal yéen ñaa dootu leen fan ak gànnaar jëkkër ak jabar ngeen. lankal ci neeg ba na la fa fekk top sama bara taxo fi na ma majo ni du ko ragal ba legi da ngay dem nak nga tëdd nga noppalu xam nga yow ñaari fan a ngi nii nelawloo nga tëdd nga noppalu bu tëddee nelaw dina bax lol ana ana jor mi ngi fa léegi calmé wu na tuuti tonton Libaas laa ko bàyyil pour mu surveiller ko il faut ma yóbbu ko hôpital hôpital psychiatrique bu Thiaroye fu mu nekk nii dafa commencé tàggaleeg sa ko Mariama la jàppee ba ko. léegi da ngay dem ko tudd noppalu nga reposé bu baax bu ngoonee nañ ci waxtaanaat. ok allez du Gönül hedefi. ada ban question la yow tamit maa jox yow ya, on est marié depuis deux jours nga may laaj nan laay def fii gue la gisuma la yow tamit baa si ñuy def waay t'as raison on est marié mais gisuñ damaa nekk seluruh. dëj et dama bëgg nga respecter et j'ai envie tubaab Major nous ne en France nous sommes Sénégal. yaa ma gënal néeg bi Sénégalais moom man maa ko moom. yaa ma gënal néeg bi. Ndiaye ah. noppi nga xam ne lan moo xew. maman Idio fils moo ma dàq néegam. nii nag Idio fi dàq làq la nga génne pour lan wàcce sa loxo nga wax ak ma lan moo xew. def moo ko dara. déedéet loolu fa yomb génnal néeg bi nii rek génnal néeg nga génn lu tax yaa ma da ngay bàyyi nga wax ak man wax ma lu mën a dégg. maman def moo ko dara. ah dafa ko dara mu la génnal néeg waaw nañ dem topp ma ba xam ne ma dina ko dàq. néeg pour la. bàjjen damaa bëgg yaa ngi yaam génn néeg bi te mu gaaw. man ngay waxal dama sa bàjjen man ngay dàq néeg. bàjjen génn nañ ndey néeg bi. lii da nga des a sa bàjjen waaye loolu li mu waxaat. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Oui, c'est bien ça, c'est bien. Il faut dormir. Tu es trop, trop fatigué. Hum? Dors un allez. Dors là, dans cette. Oui, mais repose-toi maintenant. Dors. Et puis dors bien. Oui, ça m'endort. Hum. À vous. Euh, Alors, Oui. Allez. Quoi Ça va. Merci. Allez ah, Dior eh, Dior, elle est dans la chambre. Elle est en train de dormir. Ah, oui, elle est en train de dormir. Et tu fais quoi Dama bëgg japp julli. OK, après les abolitions là, il faut prier devant la chambre de Mariam. Il ne faut pas que Dior sorte de la chambre. OK Je vais aller dormir un peu à mon réveil, je vais te remplacer, tu vas dormir un peu. On va faire des tours de garde. C'est comme chez les militaires. Ok, bah, me reposer un peu. Njaay wax na la sax kon li ma sànq ba léegi naa déggoo dama bëgg xam ci kër gi ndax sama gëdd daf fi jeex ba tax na yow ak sa doom kenn respecté tuma fi loolu laa bëgg xam. ci lan noonu. ci lan xamuloo ko yow nga tax ma contacté tagg ko ci yonent bu gën a mag ci Sénégal yow ma def lu dul li ma nëbbatu di ma suufu ba suul Mariama dëkk yëguma ko loolu yëpp mettiwuma luma metti moy luma def ba information bobu ci ma ni det na i jo fis ma jo maa neex ma tuddé ko jo fis xam lu def yaa ma dugg ci bir negam am lu def mu dakh ci bit na xaj da fa loo rafet ni det na way mu ngabal ma seen tuur ni man lay dour motax may la da sama gëdd dafa jeex ci kër gi

yaay ay yaay yaay arrêté ngir yàlla balaa situation bi di gën a aggravé léegi daal da nga maa bëgg a boole légui ci ñi ngay menacer man sa doom man yaa ma. menacé wu ma la de dama lay avertir dama bëgg nga déglu ma bu baax. bul foog ne lii ma def Mariama daf la jom non non da xam nga di lu ma wax dinaa ko def. nelaw naa eh, eh, voilà maintenant maintenant maintenant qu'est-ce qu'on va dire à Madior qu'est-ce qu'on va dire à Madior va